دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس عقل وحكمة مسخروا ليها عقل وحكمة مسخروا ليها دعوة ربي يبارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي يبارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم ۖ فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط كل البسط فتقعد ملوما مخسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد wa alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bi hadyi wastanna bi sunnati ila yawmi ddin mbokk jullit ñi ñu ngi nuyu ñépp nuyoob lislaam te muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu am cant yàlla subhaanahu wa taala ci tabliir sunu bés bi mébét ko bëgg ko yàlla subhaanahu wa taala di ñu defal ay tawféex ak jàppandal ba ñu yegsi ci bés bi ñu ngi ñaan yàlla mu mottali ñu lépp ci jàmm te lépp nekk jaamu yàlla bu yàlla nangu li gën nag ci lu ñu tàmbalee jataay yi ubbee ko mooy téere yàlla bi subhaanahu wa taala ñu ngi kon euh, sóobu ci li topp ci tomb boobu ci sunu programme tey bi te mooy sóobu ci waxtaan wi waaye bala ñoo sóobu ci waxtaan wi dinañ taxaw taxawaay bu gàtt ak xam tuuti ci kilifa gi nga xam ne moo ñu war a defal tomb waxtaan wi docteur Mohammad Ahmad Lo jàng fi Sénégal les fi war a jàng daa di dem ca Arabie Saoudite ca aljaamia islamiya jànge fa ba jële fa doctoram ci aqida dels fii ci Sénégal di yëngatu ci jàng ak jàngale ak woote ci diine yàlla bi subhaanahu wa taala taalif na ay téere tabax na tam ay daara bi ci gën a ràññeeku mooy daara ju mag ji nga xam ne ab tàmbale la ci ab université ndax manees na ko koo tudde fii mu nekk nii ab faculté bu mu ubbi ñu fas yéene mu yaatu ba mu nekk université yal na ko yàlla yombal loolu bokk na ci ay liggéeyam yi gën a mag yu mu def fii doon itam ab boroom xam-xam bu universel boo xam ne day bokk ci ay activités yu bari fii ci réew mi daanaka lees fi yëngatu ci wàllu xam-xam xalaatam a ngi ci loxoom a ngi ci ci bitim réew itam dina fay représenter Sénégal lu bare bare bari dañuy wax ne sax niñ ko xamee ci biti xamewuñ ko noonu ci biir réew mi gëdd biñ ko jox itam ci biti joxewuñ ko noonu ci biir réew mi loolu ci tënk lañu mën a wax ci li nga xam ne mooy siira zaatiyam ñu koy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla sàmmal ñu ko yàlla moo ñu ko jox ñun ñu ngi ñaan yàlla nañu ko muurloo ci mbaaxu yàlla kattanam tomb bi mu war a taxaw nag ak ñun tey dañoo ne comme dajeeg boroom xam-xam yombul dañ koy jox thème général rek mu jox ñu ay laaye biir ak ay jàngale lislaam ci tolluwaayu jullit ñi ci jamono ji ay jàng ay laaye biir yoo xam ne jullit bu nekk aajowoo nga ko ci sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa bopp sa diggante ak sa diine loolu lañ ko ne woon moom lu mu ci lu mu ñu ci tënkal indil ñu ko rek baax na loolu mooy doon pàcc bu njëkk bi pàcc bi mujj bi nag ay laaj lay doon incha allah ak ay tontu yoo xam ne ci kanam tuuti rek dinañ commencé joxe kayit yi pour ko am looy laaj nga bind ko dana am ñu saytu loolu dajale ko indil ñu ko fii ñu wax ci li jàppandal ci ay laaj mu defal ñu ci ay tontu ñu ngi koy ñaanal yàlla ci tàmbale waxtaan wi yàlla defal ko tawfiix defal ñu ko jotaay bi yàlla def ko jotaayu jaamu yàlla. lépp lu mu yéene woon pour indil ñu ko yàlla yombalal ko ko defal ko ci lu wes suñu njort ñun itam yàlla may ñu ñu mën a dégg topp wa ma dalika alallahi bi aziz tafaddalu cheikhana bismillahi muwaffaqin
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi fi teew ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bii te takku lool alhamdulilah duma ci lim ay tur waaye doy na rek ñu xam ne Cheikh Abdullah Pam mi ngi ni toog suñ ko booleek kilifa gi nga xam ne ci ndimbalul sunu borom tabaraka wa taala moo waral jataay bi muy docteur Sidi Yaxya ak ñi mu àndal fekk béréb bi nekkoon béréb boo xam ne eh, amoon nañ yéene ñëw fi lool ci ay jamono yu yàgg waaye sunu borom tabaraka wa taala lenn lu nekk fa mu ko dogale rek foofu lay amee kon ñoo ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ne sabab lu nañ jataay bi ba mu am jàpp ndalal nu ko ci anam gi te docteur sii di nekk ci seen bopp mbokki jullit yi waxtaanu tey wi li ñu diggee woon mooy jataay la boo xam ne dañu ci weccente ay kàddu ci wàllu laaj ak tontu waaye ñu diggee woon ne bala ñoo agsi ci loolu du ñàkk ñi ubbi lenn ci ay lumière rek ay flash yu ndaw yoo xam ne yu ñuy laaye biir suñ mbokki jullit yi lay doon rawatina jataay bii nga xam ne booy xool day mel ni jataayu ndaw ñi la day mel ni jataayu ndaw ñi la day mel ni ñoo ko moom suñ ne ndaw ñi nag jubluwuñ ay gone yoo xam ne ay tuut tànk lañ wala ñoo xam ne amaguñu responsabilité waaye mooy ndaw ñi nga xam ne toll nañ fi ñu leen soxlaa ci jël seen responsabilité ndax xam ngeen ne ndaw ci lislaam ni mboolem ñi yëngu ci kaw suuf ni ñu soxlaa ndaw lislaam it noonu la soxlaa ndaw lislaam bëggul jullit yi mel niñ ko miine nga xam ne nit ki bu tolloo ci dooleem day nekk ci yeneen bu demee ba mënatul dara nag ñu ne dellusiwaat na ci lislaam muy door di dem ci jàkka ja door di tàmbali di tudd yàlla door a tàmbali di julli ci yonent bi door di tàmbali def yëfi diine ñu ne ah moom kat léegi léegi ay atam laaj na ko ba suñ gisee sax gone guy dem ca jàkka jàkka ñëw léeg-léeg ñu ne moom day paayi lay àndal jàpp ne lislaam lam soxla mooy mag ña dem ba mënatuñoo dem waaye du noona nag lislaam naka jekk ñi ñu soxla mooy ndaw ñi toll ci seen kàttan ndax foofa la ñuy mën a jariñe li ñuy dénk sunu bopp di ko dénk mboolem jullit rawatina ndaw dañ koy tënk rek ci ay tënk yoo xam ne bu gàtt la bi ci jëkk ci laa biire yi mooy li suñu borom tabaraka wa taala wax ne wa tawaasaw bil xaqi maanaam ñu dénkante dëgg fii li fi dëgg ci kaw suuf nga xam ne kuy dénk sa mbokkum jullit te naxoo ko mooy dellul ci li yàlla santaane akub yonentam dellul ci santaane bi yàlla akub yonentam jàpp ca ab santaane nag buñ ko waxee mooy def ndigal ya ba fa sa kattan mën a yem nga bàyyi tere ya nag boole ko ak jaamu yàlla boo koy def maanaam ndigal yooyu ma wax soo koy def ndax ndigal yi ñooy jaamu yàlla yi soo koy def nga tënk ko ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon wa ma aataakum rasulu fa xuduuh yonente bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom tabaraka wa taala moo ko yebal wàcc ci moom téere bu toll ne alquranul karim muy téere bu rëy boo xam ne su dul woon jàpp ndalul jàpp ndalul sunu borom tabaraka wa taala akuk yombalam beneen téere bu toll noonu bu nit di mokkal ci kaw suuf amut ku xam beneen téere bu toll ne alxuraan bu nit bind wala sax ñu di ko askanek yàlla bu toll ne alxuraan boo xam ne am na doomu aadama ju ne ci kaw suuf mokkal ko nga wax soo ko xamee loolu amut nga ñëw gis alxuraanul karim gone taxaw bu am fukki at mën koo tari ba mu àgg te du ca gàtt loolu du njàmbaaru gone ga du njàmbaaru ka ko doon jàngal waaye yàlla moo leen tàggat ngir wattoo ko téereem boobu moo waxoon ne moo wàcceel boppam alquran inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun nee na maa ko wàcce maa koy wattu moo tax al imam ibnu xazm al andalusi rahimahullah bi nga xamee ne dialogue bu yaatu am na ci digganteem ak ahlul kitaab mooy ñi gëm ay téere ya jiitu woon te fekk gëmuñu alquran al karim daf ne leen seetal leen ma ci seen kàngami boroom xam-xam ci seen diine ngeen dem tànnal ma ca kenn ku mokkal benn téere ci seeni téere moo xam yu yàgg yàlla wala yu mujj yi bu ngeen dikkee mu toog fii tari ma seet genn gone ci doomi jullit yi gën a ndawe te mokkal alxuraan ñi bokk toog ñu déglu leen ñu tari ba xam ne leen may naa leen nag lu mat feek nàngami weer ngeen dem seet seen kàngam yooyu indi ci ku mokkal téere waaye kenn tontuwu ko ndax gisuñu kenn ku mokkalu téere boobu kon borom bi tabaraka wa taala li nuy wax foofu mooy alxuraan la wàcc joo xam ne daf koo wattu ba kenn mënu cee dolli aw xaraf mënee su cee wàññi it aw xaraf boo doon julli fii léegi di jàng sopp ci aw xaraf gone gu toll ni gii toogoon léegi di jàng moo lay jubbanti kon kooku wattu sunu borom tabaraka wa taala mu jël ko noonu wàcce ko ci na mu gën a selle ci yonentam bi gën a sell alayhi salaatu wassalaam kon mu doon ab téere boo xam ne wattu nañ ay xarafam te dara mënu cee wàññiku dara mënu cee yokk kon yonent boobu lan mooy itteem ba yàlla di ko yebal di wàcce ci moom alxuraan jooju mooy na ko jot li nit ñi maanaam wàccewu ko rek ngir ñu mokkal ko tari ko mu jeex waaye dafa bëgg nit ñi dund ko alxuraan nuñ koy dunde nag mooy xam li muy wax li muy digle ñu xam nu mu bëgg ñu defe ko noonu li muy tere ñi mën koo xam ba mën koo bàyyi yi muy rafetlu ñu xam ko ba mën caa tënku yi muy ñaawlu ñu xam ko ba mën koo bàyyi borom bi wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun wàcce naa ci yow alxuraan li tubayina linnaasi ngir nga leeralal mboolem ñi gëm alxuraan ak ñi ko gëmut ñi gëm alxuraan ak ñi ko gëmut nga leeralal leen maa nuzila ilayhim li yàlla wàcce mu jëm si ci kaw mukallaf yi ne ci kaw suuf moo xam ñu gëm lañ wala ñu gëmul lañ ñoom ñépp la alxuraan di waxal ndax soo defee loolu su leeree danañ ci mën a xalaat te suñ xalaatee gindiku te suñ gindikoo jaar ci siraatul mustaqim yonent boobu ñëw yor nag sas wu rëy ndax kuñ cëppeel fi béréb boo xam ne ña fa nekk jaamukati xiram lañu mënuñoo dégg dara lu ñuy wax ci tawxiid ñu yan la téere bu toll ne alxuraan ne la ñii nañu ko dégg te nañ ko jëfe loolu mooy sab liggéey soo ko defee def nga li la taxoon a jóg soo ko deful nag la la taxoon a jóg defoo ko kon yonent boobu aleyhi salaatu wassalaam ñaar fukki at ak ñett yi nga xam ne moom la dund gannaaw bi mu nekkee ab yonent muy fukki at wala fukki at du tegal ay weer ca Makka ak la mott li ñaar fukki at ak ñett ya ca Madina loolu lépp lim fi doon def mooy leeral alxuraan kese amut leneen lu mu doon liggéey su toogee ci waa këram di waxtaan ak ñoom sax la muy wax day dëppoog na ko alxuraan bëgge su nekkee ci jàkk ja di jàngale taxul ñuy wax su dee julli taxul ñuy wax su dee koor wala asaka wala aj makka nga xam ne loolu ay jaamu yàlla la loolu la muy doone na muy doone pirim alxuraan taxul ñuy wax ndax na ko alxuraan santaanee rek noona la koy defee alayhi salaatu wasalaam bu dul woon moom duñ xam nu ñuy jullee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir nga mën a dégg li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun su fekkoon ne alxuraan lan jël ne nun danoo fas yéene julli ci alxuraan kese ni ko alxuraan santaane waaye duñ dellu ci li yonent bi jàngale kon loolu lan lay firi wa aqimu salaata ne lañuy fekk ci alxuraan taxawal leen julli nun koy taxawale duñ ko xam ñaata julli la yàlla farataal duñ ko xam nekkul ci alxuraan julli gu nekk ñaata rakkaa la kon duñ ko xam ndax loolu nekkul ci alxuraan kon ngir nga leeralal nit ñi li ñu yón li tax li ñu wàcce ci ñoom dundug yonent bi ak jàngaleem ci lan xamee ne julli yi ñu farataal ndeke juróom la ci lan xamee ne ndeke jullik suba ñaari rakkaa la jullik timis ñetti rakkaa la ci loolu kat lan ko xamee ci lan xamee ne ndekete kuy julli rakkaa bu jëkk ba ak boobu ñaareel ba da ngay jàng faatiha ku saar bu ñetteel ba ak ñeenteel ba nga jàng faatiha kese ci lañ xamee ne julli gii dañ koy biral waaye julli gii dañ koy yàlla defe naa loolu lépp jullit yépp nangul nañ ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko jàngale ñi jële ko noonu wala boog dégg gu ma mel ni ngir moo xam ne dañ ne bu ñuy julli tàkkusaan dañ koy biral kon jël nañ ko alayhi salaatu wasalaam ni mu ko jàngale bu dee ci wàllu koor mu jàngale ko alxuraan daf ne rek bu koor ñëwee sañ ngeen di lekk di naan ba mën a xàmmee wëñ gu ñuul ga ak gu weex ga wa kulu washrabu xatta yatabayana lakum alxaytu alabyadu min alxayti alaswadi min alfajr su fekkoon ne danoo yem ci textu alxuraan bi kon na kenn ci saxaaba yi defoon noonu la ñuy def boo tëddee ci sab néeg da ngay jël ñaari wëñ rek teg ci sa wet ginnaaw ab làmp tàkkut soo jógee xool xàmmee woo leen nga naa kon de ba tey mën na maa lekk continuer di lekk ka naan di lekk ka naan boo xoolee xam ne lii wëñ gu ñuul la lii gu weex la nga ne ah kon kat fajar jot na naa jàpp waaye loolu ku tëju ci néeg di ko def boo wëttuwul da nga lekk ba bëccëg moo tax saxaab yi ba ko defoon bi mu dikkee nett li ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi daf koo ree alayhi salaatu wasalaam ne ko inna ne ko yow de saw loos dafa yaatu loolu waxin la ci ci kàllaam ak arab koo xam ne lam def xeetu càggante da caa nekk daal di ne ko li ñu jublu ci xaytul abyad min al xayt al aswad wëñ gu ñuul googu ak liñ ci jublu ak gu weex gi liñ ci jublu moo di lëndëmu guddi ak leeru bëccëg maanaam saa boo gisee fajar ne lëndëmu guddi gaa ngay dem leeru bëccëg gaa ngay dikk xamal ne loola mooy fajar foofu mënatoo lekk mënatoo naan su leeralul woon loolu alayhi salaatu wasalaam dañuy continuer yor suñ ñaari wëñ yooyu rekk ba faaw loolu lépp li ma la fi bëgg a wax moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom lañ digal mu leeral alquran al karim mu leeral ko ci lépp nag bàyyiwul dara dara dara dana faral di wax ne doon ab yonent ñi yebal la ci aw nit sa dund lépp ñu war koo xam ndax sa dund lépp daa doon tafsirul quran loolu nattu bu metti la ab nattu la de bu metti ndax léeg-léeg ay ay alxuraan wàcc ci moom yoo xam ne mu war koo leeral lu diis lay doon ci moom te du ko mën a bañ a leeral faaw mu leeral ko léeg-léeg nit ñi gëstu ci ak dundam ba àgg foo xam ne day metti lool nag waaye ma ne su ko bañ a gëstu ndax dees koo war a xam ndax moomul boppam la muy def nit ñi dañ ko war a xam ba di ko def moo tax nit ñi boo jàngee ci téere sunna yi ak téere chamail yi dañuy topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ca biir këram digganteem ak soxnaam soxnaam di nettali nam doon sangoog moom ca ngaayul farata dem ba àgg ci nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ci wanagam di faj aajoom mu yéeg ca kaw étage ba xool gan wet lay jublu ba noppi yëmu ca waaye nettali ko loolu kuñ ko defoon ci sa baay wala ñu def ko ci sab sëriñ ba watul àdduna tukki waaye ak yonent daa doon ab nattu ndax sa lépp lañu war a xam lu tax ñu war koo xam mooy suñ ko xamul duñ ko mën a jëfe te dañ ko war a jëfe ndax yàlla moo leen ko sant wa ma ataakum rasulu fa xudu kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la dunde ak saxaaba yi ba jot li diine ba dara dara desut ba jàngal leen sax kuy dugg ci wanag tànk booy jiital ak booy génn ban tànk ngay jiital booy dugg looy wax ak booy génn looy wax dafa naa ki jàngale ba àgg foofu nag du bàyyi dara ci tawxiid du bàyyi dara ci jàpp ci sunna moo tax kenn ci juif yi dafa mas a wax Xusayfatu ibnul Yamaan ni ko yéen de seen yonent bi daa mel ni jàngal na leen lépp mu ne ko jàngal nanu lépp ba ci nu nuy duggee ci wanag sax kon bàyyiwul dara di wax ne amul picc muy naaw wala dara lu yëngu ci kaw suuf lu dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nanu ca ab xam-xam xam-xam boobu mooy foo toll fu nekk am na loo war di wax am na loo war di def loolu moo tax bu ñuy wax ay yëf yuñ sos gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay waaru ci yàlla ndax doo xam la ñuy sos fan la war a mën a jëm koo xam ne bàyyiwula lenn sooy dugg sa kër looy wax sooy génn looy wax sooy dugg ca jàkk ja looy wax sooy génn ca jàkk ja looy wax sooy dugg ca wane wa sooy génn soo toogee sax noo war a toogee soo ubbee alxuraan di jàng nga xam ne lépp lépp dafa fees dell ak i teggin ak i jàngale yoo xam ne foo toll fu nekk day mel ne yaa ngi ànd ak ndigali yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak i tereem ak i orientation kon kooku yow amuloo jotug di jëli leneen di ñëw di ko ci dugal ndax soo ko defee rek am na lu ci bokk loo xam ne da nga koo dindi jël leneen teg ko palaasam loolu mooy li ñuy tudde biddaa li ñu bëgg a wax foofu mbokk jullit yi mooy li tax dëgg dëgg dëgg tënku ci sunna mënta ñàkk moo di jullit yépp maaseel nañ nanguwul yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu jàngalee julli nanguwul ko ni mu jàngalee koor nanguwul ko ni mu jàngalee aj màkka nangul ko dem jàngalee asaka kon fàww nag nim jàngalee ne wéetal yàlla nii la ñi tënku ca loola ndax yii ma tudd kat li ñuy tedd tedd ak li ñuy baax baax la ko tàmbalee ci julli ba ca dem màkka wéetal yàllaa ko gën a màkk moo ko gën a tedd ndax su wéetal yàlla amut yooyu yépp bu ko nit ki defee amul njariñ day màbb walaqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wa la takunanna min alxaasirin borom bi nee na ko wàcce naa ci yow ni ma wàccee woon ci yonent yi la jiitu wàcce naa ci yow ni ma wàccee woon ci yonent yi jiitu ne boo bokkaalee sa jëf lépp day màgg te itam da ngay perte kon fondation bi nga xam ne ci la tabax bi war a tegu door a mën a dëgër wala mu door a mën a taxaw sax kooku mooy tawxiid wéetal yàlla demal seeti maçon ba dàq tabax ci àdduna nga jëw ne ko kaay tabaxal ma fii jumaa defal rekk birig yi ba noppee tegal ci kaw bul ma gasal fondation bul ma defal dara tegal rekk taqaleel ma mu taxaw nga tegal ba benn étage ci kaw su ko defee mbooloo mi ñëw julli si ragal naa ne loolu ku ko jéem xaw ma ana Mansour waaye boo wëttuwut ña doon tabax ci boppam duñu àggale duñu àggale kon tawxiid bi ci boppam mooy jiitu leneen luy ñëw door a ñëwaat tawxiid bi su jiitu woon ba noppi dem ba mu yàgg ayib ñëw ca maanaam mu yàqu jàppal ne lépp yàqu na dara baaxatul kon nag ndaw ñi suñ leen di jàngal ak suñ leen di yar nañ leen tàmbalee ci xamal leen xaqi sunu borom tabaraka wa taala yonent boobu ma la wax ne moom la yàlla nattoo gindi xeet wi am na makka lu ëpp fukki at yoo xam ne tawxid doo ma lay jàngale tawxid rek koor aj makka joxe asaka yooyu li ñuy màgg màgg kañ lañ doon farata ca Madina gannaaw bu ñu dundee makka ba dund fa lañ fay dund ba gàddaay kenn musta woor lu jiitu loolu kenn musta wax naan da ngay dem di aji kenn mënta wax naan da ngay génne asaka wala da ngay jihaad fi sabilillah wala da ngay bàyyi sax naan sàngar nit ñi dañ doon naan sàngar ñu di leen jàngal tawxiid lu tax mooy am na tabax boo xam ne bu xasee taxaw ba dëgër li ci def lépp day yomb kooku moom lañ tudde binaaul insaan wala binaaul umma ngir tabax aw xeet faaw ñu tàmbalee ci tabax xol bi ba mu dëgër su xasee dëgër lu ne lay àttan lu nekk lay àttan mi ngi mel ne nit ki nga xam ne yàlla bind na ko mu nekk borom kàttan ba noppi mu wëlbatiku ñu di ko tàggat nag tàggatuk yaram ba mu dëgër kooku boo ne ko kaay yëkkati lii wuute nag nga gis ku lompañ koo xam ne amul doole tàggatuñ ko nga di ko ko yëkkatiloo day wuute loolu du ko àttan moo tax lislaam dafa bëgg a tàmbalee ci tabax nit ki ba pas-pasam wér digganteem ak boroomam mu xam ak yàlla ba du ca jalgati dara du ko jaawale xaqi keneen ak lu koo ko màgg-màgg mu di yonent muy malaayika muy nit ku baax du ko jaawale mukk ak àq yàlla loolu mooy tabax bu jëkk bi nga xam ne moo war a jiitu ci xolu ndawul lislaam li su jiitoo ba àggal nag li ci des lépp day yomb moo tax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari baat yu mag yooyu yi nga xam ne ñoo boole jullit yépp te kuy dugg ci lislaam ñu ne la nanga ko jëkk a wax du waxi kese joo xam ne ak léemaay la dañoo war a xam li ngay wax lu mu doon ndax su xasee xam li muy wax lu mu doon dund ko ci xolam kooku àdduna ak li ci biiram lépp dal nay woyof luñ ko mën a yanati ëllëg duutu diis ci moom moo tax anas ibnu malik mi ngi nettali ne ci madina bis bi nga xamee ne xaraamal sàngara dëgg nag wàcc na xaraamal sàngara wàcc na ci alxuraan yorent bi yëgle ne xaraam na ne abu talha bokkoon na ci jaaykati sàngara yu mag yi nee na mu ne ma anas demal ca kër ga tax ya fa nekk yépp nga toj leen nee na waa Madina gépp def noona mu ne keroog mbeddi Madina yi da doon da doon walangaan mel népp taw ndax ay sàngara yu ñu defaroon ca kër yi tax yi ñu daan xëy di ko jaayi ci sàngara bi mu tuuroo dëkk bi da doon walangaan lu waral loolu mooy tawxiid jiitu na su fekkoon ne yonent boobu aleyhi salaatu wasalaam dana cëpp rek ñu ne kii kat yàllaa ko yónni mu ñëw taxaw ne leen tuur leen seen sàngara si dañ naan ko duñ ko tuur lu tax nu koy tuur waaye daa am fu mu jaar ak ñoom ba noppi tarbiya boobu jiitu njàngale moomu jiitu xam googu ñu xam xaqi sunu borom tabaraka wa taala ci ay ndigalam ak i tereem xam gi ñu xam aljanna ak yoon wa fay yóbbu nit xam gi ñu xam sawara ak metit wa ak tàngoor wa ak la fay yóbbu nit moo tax buñ ne ko bàyyil nangam ndax dalay yóbbul sawara dalay yóbbu sawara baat du ca tegu defal nangam ndax dalay yóbbu àjjana baat du ca tegu foofu la àggoon ak ñoom ci tarbiya tarbiya boobu nag mooy loo xam ne ndaw ñi dañ koo soxla comme départ wéetal yàlla wéetal yàlla goo xam ne dana àgg ci doo ko bokkaale kenn gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ki yàlla yebal mu leeral alxuraan ba doo ko jaawale kenn ci ay ndigalam ak i tereem ndax kat liñ ko jottali loo woon jottali na ko de dara desut lépp la jottali ba sunu borom tabaraka wa taala wàcceel boppam alquran ne diine ji mat na nag tey al yawma akmaltu lakum diinakum tey jii seen diine mat na loolu ma nga wàcc kañ ca xajjatul wadaa aj gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa la doon tàggoo ak nit ña ca bésu arafa ba mu tàggoo ak xeet wi ba noppi xutba xutbaam boobee nga xam ne làmboo na lépp lu doomu aadama di aajowoo ba noppi seedeloo ko ña fa teew ñu wax ne la daje ci ajug yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca bis booba ci ay jullit musuñoo daje fenn ci kaw suuf ci lu jiitu bis boobee ku mel ne al imaamu Dhahabi nekk historien bu mag a mag a mag ci lislaam wala historien bi gën a mag sax ci lislaam mënees na ko ko tudde nee na la fa daje ci bis booba mat na cent mille personnes téeméeri junni ci ay saxaaba kon loola ci yooyu jamono lu rëy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu xutbaa ba noppi daf leen a laaj mu ne ala hal ballaxtu ndax jottali naa ñi ne ko ballaxta ya rasulallah jottali nga de muy wax ne allahuma shahad di joxañ ci kaw di wàcce baaramam bi ci suuf di wax ne yow sama borom seedeel loolu kon yaa ma yónni woon kat may jottali jottali naa bi mu noppee ci jataay boobu bi mu fa daataan jóge la al yawma akmaltu lakum diinakum wàcc yàlla ne kon seen diine mat na nag tey al yawma akmaltu lakum diinakum seen diine mat na wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina nii lislaam mel tey noonu laa ko bëggee bu leen ma ci dollil bu leen ma ci wàññil loolu mooy wa raditu lakum al islaama diina nii mu mel tey jii noonu laa ko bëggee bu leen ma yokkal bu leen ma wàññil akmaltu lakum diinakum dañuy wax ne li am kamaal ci kàllaam ak arab bu ñu jëfandikoo al kamaal muy akmaltu mooy loo xam ne dara mënatu caa dolliku bokkul ak tamaam boo ne atmamtu moom dara mën na caa dollikuwaat boo du yoon kaas bi ba mu fees ak ndox bu la neexee nga ne akmaltu foofu kamaal ngay jëfandikoo boo ci sottiwaatoon ndox rek meneen ndoxay tuuru moomu door a am place waaye nag wa atmamtu boo ko waxee mooy mottali naa ko waaye dara mën na cee teguwaat loolu moo tax mu jëfandikoo ci ay xéewalam baatu wa atmamtu aleykum ni'mati ndax xéewalug yàlla du jeex lu mu bari bari mën na caa tegaat leneen moo tax mu ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha xéewal yàlla kenn mënu ko wàññi ba xam ñaata la kon mbokki jullit yi tomb bu njëkk bi mooy dellu ci alquran ak sunna tënku ci munta ñàkk ci jullit képp koo xam ne tënku nga ci alquran ak sunna nga jàpp nga ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci diine ji ëllëg boo dajeeg sa borom am nga aw lay aw lay mooy lan mooy jaamu yàlla ya ngay def day da nga teew ci sa bàmmeel kenn doxut sa digganteeg sa borom mu laaj la waaw yow diw sàngam jaar ci saw tur ak sa turu ndey ak sa turu baay jaamu yàlla sàngam foo ko jële woon su boobaa la ngay lay doon saw lay wu am njariñ mooy lii de ci alxuraan ak sunna laa ko jële woon sab yonent a ko jàngale woon kenn mënu ca dara waaye yow diw sàngam foo jële woon lii nag mu ne man de damaa ñëw rek fekk nit ña di ko def may def man itam rek su boobaa loolu du doon aw lay moo tax kenn amut aw lay ci kanam sa boroom ci juyoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku na ko ndaw ñi jël muy seenu yóbbal bu jëkk ñaareelu yóbbal bi moo di woote bu lislaam tey ndaw ñi laaj na lu bari laaj na lu bari ndax lislaam ba mu jógee ba tey musuta toll benn diggante boo xam ne ñàkk na ay gàllankoor gàllankoor bi gën a mage ci gàllankoor yi mooy iblis mi taxaw te fas yéene jax-jaxal xoli jullit yi fas leene song yëkkati leen daaneel leen ba duñ dem àjjana ndax kat looluy liggéeyam liggéeyam ci kaw suuf mooy jullit yi bu nañu dem sawara te buñ dem àjjana walla yaasu billah lu mu mën nag ci loolu dana ko def kenn ku nekk it ak fam lay fekk di fa bëri ak yow am na ñoo xam ne noppi na ci ñoom amatul ci ñoom soxla fa ñuy xëy ak di fa gont foofa ab toolam la moom faaleetu leen waaye yow mi jóg nag ne da ngaa bëgg a góorgóorlu jaar ci siraatul mustaqim gëmal ni yow yaa sempi ab sampam nag yow lay bëreel fu ne nag dana la fa jóge yow mi jóg di sàkku ji xam-xam pexe mu ne dana fa jaar ak yow kenn ku nekk xam na ne diine ji xam-xam moo ko yor kenn mënta dund loo xamul te it kenn amatu lay ci ñàkk a xam borom bi daf ne fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun laaj leen ñi xam su fekkee xamu leen kon laaj sax sàkku xam-xam la kon yàlla nee na na ngeen dem jàngi yow mi jóg di góor-góor ne damaa fas yéene jàng iblis dana ñëw ci sab xol di jax-jaxal waaw yow fii nga nar a nekk rek yor téere yi di ci nër nëri sa moroom yi ñi ngay liggéey ñii dem nañ Europe ñii ngi ci nàngam ñii ngi bay ñii ngi commerce ñii ngi business yow ngay xëy rek yor téere yi nii di dem ak a dikk bu yàggee tuuti sam xel jaxasoo ko de ah man kat diw mi ma fi dendaloon léegi tàmbali na di tabax kër mu ngay muur te man ba léegi amaguma lu ma ndékkee sam xel tàmbalee jaxasoo ñëw fekk keneen koo xam ne jàng na ba jàpp ne am na xam-xam ci lim jàpp moom ndax jàng na ñaari téere ñett ñeent ñàkkul ne am na kuy jóge ca koñ ba ñëw sukk fi kanamam di jàng bu nes tuuti ñaar ñëw ñett ñëw ñu ne ko ah yow kat léegi ab cheikh nga seytaane daal koy defal lool ci xolam mu daal di yëg ne moom kon léegi imaam la ci imaam yi jullit yi na daal di beru fi bérébam duutu sawar sax ci gisee borom xam-xam yi wala muy dajeeg ñoom ndax suñ dajee léegi ñu feeñal niveau bi mu toll te bëggul mu feeñ kon na leen sori nu muy def mooy beru rek ci ña nga xam ne ñoo ko féete suuf ñuy ñëw mu di leen won bis bu set ne moom borom xam-xam bu mag la ñoom it ñi di ko gën a won ne ko yow borom xam-xam bu mag la muy gën a fétal nag di dem rek su xamut sax dana dem ba rusatee laaj. ndax su laajee ñu ne ah waaw kon ndekete moom am na lu mu xamut su ko defee suñ ko laajee lu mu xamut it ragal yàlla dafa war a nekk du fa nekk mu tontu lu mu xamut kooka seytaane dal na koy daaneel ànd ak ne loolee mu xam doon ko xamlewaat lu baax a baax la su ko seytaane gañewul woon day xëy dem jàngi bu ngoonee mu ñëw toog di jàngale ñu baax ña kat noonu lañu ko doon defee Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moo dëkkandoom ja nañu doon def mooy noonu bu kii xëyee dem ca toolam di liggéey kii xëy dem fekke ji njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ngoonee ñu daje ci kër ga lam jànge woon ca bés ba mu jàngal ko ko bu ëllëgee moom mi jànge woon mu xëy ca toolam ka ca des ñëw jàng si ñuy jàngaleente ñoom ñaar loolu mooy ballighu anni walaw aaya jottali leen lu mu tuuti tuuti la nga xam nga jàngale ko lu baax la waaye bul jàppe mukk sa bopp boroom xam-xam te fekk àggoo ca loola jàpp naa ne nit ki saa bu demee ba jàpp ne jàngatul jàngatul seytaane nga koy gañe amul benn niveau bu àgg booy àgg ndax nekkul ci ay diplôme léegi la nga dem ba mu yàgg ñu war la ne la yow kat léegi docteur nga te foofu la xam-xam bi yem na nga daal di ferenk laay ne ah comme que am naa doctorat nag kon léegi moom jeex na xam naa lépp fekk du noona seytaane nga lay gañe foofa nga war a gën a jàngee nag fa nga war a gën a jëm nag ci gëstu loolu lépp bëre la boo xam ne seytaane daf fii bëre ak nit ki ci wàllu xam-xam boroom xam-xam yi dañuy wax ne saa boo demee ba ne boroom xam-xam laa jàppal ne nag yaa ngi ci digg réer nag réer ndax jëmmi xam-xam peeg ko dafa mënta nekk ku dul ab yonent rek moo mën a mucc ci loolu yonent rek la yàlla di jox xam-xam bépp waaye ku dul yonent bi ci xam-xamu diine jii munoo peeg lépp moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam-xamu diine la peeg lépp waaye même xam-xamu àdduna peegut lépp xam-xamu àdduna peegut lépp daa ñëw Madina fekk baykati tàndarma yi ñiy jëfandikoo lu ñuy tudde tabiir tabiir wala talqiix mooy tàndarma dafa am tàndarma yu góor ak yu jigéen béykat yi tàndarma yi nga xam ne spécialiste lañ ñoom ñoo xam loolu su waxtu wa jotee dañuy jël ci tóor tóori tàndarma bu góor ga di ko def ci tóor tóori tàndarma yu jigéen yi ngir mu meññ mu ñëw gis ñu koy def màkk bay tàndarma amu fa béréb bu doj la mu ne ñii li ñuy def lu mu doon ñu wax ko ko mu leen ah li ma jàpp de mooy su ngeen ko deful woon it dotee mën naa meññ ci kàttanug yàlla ñu ne ah kat ab yonente ko wax kon coono bi nan ko bàyyi waxtu wa jot kenn defut loola meññi jot genn tàndarma meññut amuñu dara ñu ñëw ndax ñoom jàppoon nañ ne ci ak yonentam lay waxeek ñoom waaye moom ci njortam la waxeek ñoom booba comme nit qul innama ana basharu mislukum maanaam bu dee ci nit gi nit la comme nit ñi bu dee wax yu nag loola moo ko wutale ak ñeneen ñi te loola nekkul woon wax yu ñu ñëw ne ko noonu kat sun tàndarma yi may ñut te yaa nu ko waxoon mu ne leen antum aalamu bi shuuni duniyaakum seen mbirum àdduna kat yéen a ma ko gën a xam seen mbirum àdduna mi ngeen koy doxale nooy xëyee ca usine ba sa garage oto bi loo fay def boo xëyee sa tool beeg sa gopp beeg la nga yor sa bitig ba ak sa business ba yooye moom yéen a ko xam fexeel nag ba tënk ko ci rek li dagan ak li daganul waaye nag détaillé rek ndax dana baax ak du baax ak yooyu loolu mbirum àdduna la yéen a ko gën a xam kon foofu la nga fay jëli mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam diine ji mooy loo xam ne lépp la xam moom doo nga am lool nag xeet wi yépp ak lu seen boroom xam-xam bari bari bari bari duñ àgg ci loola ci xam lépp da ngay xam lii rek lii réer la nga xam lii lii réer la moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy digal yonentam bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu ñaan ko waxu ko ne na ngay ñaan lenn néew ko del ñaan gudd fan wala ngay ñaan alal wala ngay ñaan ay doom wala ay kër wala lenn waaye waqul rab zidni ilma ñaanal yàlla mu dolli la xam-xam bu dee mboolem nit ñi nag mu ne wa ma utitum min al ilmi illa qalila liñ leen andil ci xam-xam tuuti la tuuti la maanaam waxuñu kenn ku ne liñ la andil tuuti la waaye yéen ñépp li ngeen am suñ ko boolee tuuti la kon nag kuy bari xam-xam ba di ko damoo ci kaw nit ñi loola nekku fi moo tax saa boo àggee ci seytaane ngi lay sax ca suuf di jaxase sa xol bëgg nga yëg ne boroom xam-xam nga ba dangaa war a féetewoo di joxe waaye jàngatoo xamal ne seytaane nërmeel na la daan na la kero ca làmb ja kon foo toll fu rekk yëgal ne ndongo nga loo xam ne da ngay door a tàmbali te nag xam-xamu lislaam sax noonu la bindoo loo gën a sori da ngay gën a tiit ci sa bopp di gën a bari looy wattandiku ñaare boo gisee ñi ne ci diggante bi nga xam ne xamaguñ sax luy xam-xam dëgg-dëgg seeni fit day gën a dëgër jamono yu nekk lu ne danañ ci ñemee dugg lu ne danañ ko ñemee wax jàpp nañ ni delloo ab laaj njaaxum la loolu mooy ki ne ci diggante moo tax dañuy wax ne ansaaful ulamaa yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo dikk ci xam-xam ba ne ci diggante bi ñooy ñooy musiba ci askan yépp ndax ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñi nekk ci suuf nga xam ne jànguñu dara wóolu nañ leen ndax jàppee nañ leen boroomi xam-xam ndax seen wax ju bari ñooñu ñooy wax ak ñi ne ci suuf ba noppi buñ ñëwee ci ñi leen féete kaw ci xam-xam def leen seeni noon di xeex ak ñoom ndax bëgguñoo jaxasoo ñoom suñ dikkee ci ñi ne ci suuf yàq deru ña ca kaw la ñuy def ngir bëgg ñi ci suuf topp leen loolu mooy ñi ne ci diggante bi kon ndaw ñi bu leen dara mën a dox seen diggante ak sàkku xam-xam fu boroom xam-xam nekk waxuma ci koñ bi waxuma ci dëkk bi waaye ci tund wi na la jaral semaine bu nekk nga seqi say jéego dem fekk doonte ñaari xaraf sax nga jàng ko ci moom lu mu tuuti tuuti baax na ci semaine bi ndax lu tuuti bu ànd ak lu tuuti bu ëllëgee mu ànd ak lu tuuti nga continuer ci loolu muy tuuti bu yàggee rek bari ndax defe naa alal noonu ngeen koy fàggoo fàggu ko te alal yi boo doon def bés bu set nga dolli ko fukki dërëm te taxawut bu yàggee alal lay doon na bañ a dellu gannaaw rek xam-xam nag noonu la fexeel ba bis bu ne nga dolli ko xam-xam léegi nag aw lay daa gën a ñàkk ndax moyens yi ñuy sàkkoo xam-xam dafa bari kon fu nit ki toll fu ne li ñu leen di dénk mooy sàkku leen xam-xam début yi gën a mag tey ci askanu lislaam mooy ñàkk a jàng ak ñàkk a jublu xam-xam ak sànq waxtu ci lu amul njariñ kon yooyu faw ndaw ñi xeex ak moom am na ñoo xam ne dañuy bew ci diir bu gàtt jàpp ne léegi ci kaw suuf daal amatul ñenn ñu gindi ko ñu dul ñoom mën nañoo doon as kuréel su tuuti mën nañu bari mën nañoo néew keneen ku mën a doon la ñuy xëy di ko liggéeyee ba ngoon mooy wax ca ña ca des loolu njuum te gënu ko rëy mu ndax xool nga sa bopp ak li ne ci yow ci ay ayib yu aaja defar ndax dangaa noppi ci sa bopp bay gëstu ñeneen ña tàmbaleel ci sa bopp nga laaye ko biir wéet ak sa bopp xool ayib yi ne ci yow te yàlla xam ne ne bari na lool ak foo mën a toll nag boo xoolee sa bopp da nga gis ci ay ayib loo xam ne boo yërëmee sa bopp da nga ne ci sama bopp lay tàmbalee xoolal li ne ci yow ci ay xalaat yu baaxut li ne ci yow ci ak réer ci ñàkk xam loo xam ne da nga ko waroon a xam li ne ci yow ci loo xam ne wala yaasu billaah mën naa doon kiñaan gu jëm ci doomu aadama wala ak mbañeel goo xam ne teguwul fenn li nekk ci yow ci ak càggante ci jaamu yàlla looy jàng ci alxuraan bés bu nekk looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looy tudd yàlla rakkaay yi ngay julli ci guddi gi nu mu toll fan yi nga mën a xëy concentré wu ko ba ngoon te doo tudd doomu aadama ci kàddu gu ñaaw fan yooyu nan lay toll ci weer wi xeet yu mel noonu boo ci contrôler sa bopp yar ko ci dana néew nga am jotug di def ay jataay yoo xam ne soo xëyee ba ngoon ci ñeneen ngay wax su ko defee beneen tomb ba mooy ndaw ñi yëngu ci diine tam ñor leen ba jaral leen bàyyi lu bari luñ nekkoon aajowoo nañ ñaari mbir yoo xam ne yu am solo la benn bi mooy góorgóorlu ba bennoo wattandiku xuloo ak werante ak ŋaayoo ci yoo xam ne yu ko jarut la te dara jaru ko nag li leen boole muy alquran ak sunna warata tàqale doomu aadama te am na ñoo xam ne seenu tàqali ko ci biir diine la te loolu musiba la inna alladina farraqu diinahum wa kaanu shiaan lasta minhum fi shay ñi nga xam ne dañoo tàqali ko ci turu diine nga xam ne loolu rekk moo leen tàqale borom bi tabaraka wa taala nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ci yéen lasta minhum fi shay jotewoog ñoom dara kon borom ki ne ci diine lislaam ak ki ne ci diine lislaam dañoo war a jiima góorgóorlu luñ man ci ak jege ñu def ko luñ man ci ak bennoo ñu def ko bennoo nag firiwul ne dañuy raayalante gannaaw nga gis sa morom nekk ci ay njaaxum nga ne cell ndax dangaa bëgg ngeen bennoo déedéet du noonu da nga koy laaye biir moom it bu gisee ci yow dara mu laaye la biir ndax da ngeen a ànd di dox ci aw yoon am dëkk bu ngeen jëm sooy dox ba mu yàgg nga geesu gis ko mu bëgg a jël weneen yoon nga ne ko ee diwkaay yaa ngi jàdd de yow it soo defee noonu ginnaaw xam na yoonu mu ne la yaa ngi jàdd ngeen ànd dem l'islam dafa organiser loolu jubbanteente ci laayante biir ak teg ko ci anam goo xam ne day ànd ak yar ak teggin loolu lislaam daf ko organiser bari ay at wala nga mag nit du tax nga jàdd te jubbantiwu la xoola julli gii imaam a ngi ci suñ kanam di julli julli na benn rakkaa toog ay tuut tànk rek ñoo nekk ci gannaawam waaye ñu mën a julli lañ bu toogee luñ koy wax subhanallah ànd ak ne mën naa jur sax seen baay boo demee waaye nag du tey ne ko subhanallah ndax lii kat julli gi yàllaa nag kon ku fétal nag ci biir yoonu yàlla wi faw gone dana nekk ci sa gannaaw nag ne la subhanallah su boobaa daal di jóg rek nga war a def àggale sa julli noonu la war a demee kon jéem a góorgóorlu jëm ci bennoo goo xam ne dañ koo teg ci dëgg loolu ci li ñuy dénk ndaw ñi la nañ wattandiku bépp tomb boo xam ne dafay yàq seen diggante wala mu di leen soreele wala mu yàq seen organisation wala seen lenn kon bennoo gi luñ sant la luñ bëgg la lu baax la moo xam ci biiri association lay doon wala nekkul ci biiri association ndax kat association yi ay këri liggéeyukaay rekk la dëgg la nag loo xam ne dañ ko teg ci aw yoon déclaré ko ñi xam ne ñii mbooloo sàngam lañ tudd autorités yi leen war a xam xam leen ku bokk ci seen biir say yëngoog say génn ñi xam ne mbooloo sàngam ñooy yëngu ñi xam leen loolu lu leer la liggéey ba cëg la loolu moo tax dugg ci ñoom doon loo xam ne lu baax la moom itam waaye nag duggoo ci itam taxul ak noonu dox sa diggante julli yi ndax kat la leen boole mooy alxuraan ak sunna nag loola lu mat a bàyyi xel la loo xam ne faw ñi di ko dund ki bokk ci association bi ak ki ci bokkul ginnaaw ñoom ñëpp alxuraan ak li sunna la ñuy dund nañ wattandiku seytaane dox seen diggante kon benn tomb bi nga xam ne bu am solo la ci ndaw ñi tey mooy jéem a dox ak jéem a góorgóorlu ak jéem a bennoo benn la seenub liggéey di yëgoo te wattandiku ak jaxasoo ak meroo wala lu nuroog loolu di dox seen diggante beneen bi ci des tañ aajowoo ko lool moo di fu waay nekk yàlla baaxee la dara ci xam-xam am na ñu nekk ci seen wet ci sa wet ñoo xam ne yàlla baaxee gu leen lu mel ne lim la baaxe yaa ngi jàpp ci diine di ci góorgóorlu yaa ngi dem di julli ji yaa ngi dellusiwaat am keneen ku tëdd ci garabam nga di ko romb di dem ak a ñëw yàlla baaxee gu ko li mu la baaxe yaa ngi muur yow jigéen ji yaa ngi góorgóorlu yaa ngi def nii am na keneen koo xam ne mi ngi toog def yaramu neen nga di ko romb di dem ak a ñëw yàlla baaxee gu ko lan moo war a dox sa diggante ak kooku mooy fàttaliku ne gindiku ci loxo yàlla la nekk gindiku dafa nekk ci loxol yàlla maanaam gindi ab xol mu jaar ci siraatul mustaqim kooku yàllaa ko yor yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa mooy gindi ku ko soob mooy bàyyi it ku ko soobul mu nekk ci ak réer ci maandu teen subhaanahu wa taala moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam sun borom daf ne ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim yow day da ngay wane aw yoon rek ne lii moo baax lii moo baaxul waaye bu dee gindi xol ya nag ñu jaar ci lu baax bàyyi lu bon innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha bu dee gindi xol moom kooku yàllaa ko yoral boppam bu dee wane yoon nag kooku jox naa la ko mën ngaa wane yoon moo tax ñi ci kaw suuf ñëpp wootekat yeeg imaam yeeg jàngalekat yëpp dañuy wanew yoon gaañu daal yoon waa ngi fii ku fi jaar mooy siraatul mustaqim ku ko bàyyi yaa ngay réer waaye nag gindi xol ba nag mu jaar ci siraatul mustaqim kooku suñ borom a ko yor kon yëg-yëg boobu nga war a am sa digganteeg sa mbokk jullit mi nga xam ne jàpp nga ne yaa ko tane ci diine leneen li gën a war a tax nga bañ koo saboote bañ koo suufeel bañ koo doyadal mooy fàttalikul sa bopp yow démb kadalika kuntum min qablu fa manna allahu aleykum ne nii ngeen meloon démb yàlla defal leen xéewal ba ngeen mel nii tey kon loolu soo ko fàttalikoo doo ne kii moom dafa alko wala kii daal dafa nangam kii dafa nangam déet am na beneen jëf jëfandikoo woo xam ne beneen jëfin woo xam ne moom ngay jëfanteeg moom beneen bi ci des bi tax nga war a def ndànk ci mbiram mooy lii tey la waaye xamoo ëllëg yàlla mi la gindi woon tey ngay góorgóorlu tey di muuru di waax lu dem ci jàkka jàkka delsi wala iyaasu billah xamoo sag mujj fu mu jëm moom mii ne ci càggante gi tey xamoo ak mu jëm ëllëg fan la jëm amaana mooy mujj doon ka gindiku wala iyaasu billah yow nga mujj nekk ka réer yooyu su dajee nit ki tane nit ci wàllu diine da koy xool bëtu yërmaande da koy xool bëtu yërmaande moo tax cheikhul islam ibnu taymiya dafay wax ne ahlu sunna ñi nga xam ne ñoo jàpp ci alquran ak sunna nee na alamu nnaasi bilxaqi wa ar wa arxamuhum bilxalq nee na ñooy ñi gën a xam ñépp dëgg waaye ñooy ñi ëpp yërmande ci nit ñi buñ gisee ku réer wala kuñ jàpp ne ku réer la dañ koy yërëm niñ yërëme seen bopp su fekkoon ne ñoom wala seen doom wala seen soxna moo nekk ci réer googu daf leen di metti metti goo xam ne dafa ànd ak yërmande waaye duñ ne ndokk xamoon nañ ne kii day alku wala kii xam nangam dafa topp yoonu nangam daa mel nii daa mel déedéet loola taxu leen a jóg ci kaw suuf yërmande lañ war a àndal joo xam ne yow mi yàlla gindi dangaa ne ci kaw suuf di xeex ak iblis benn xale boo xam ne dafa bokkoon ci ñu yor xalaat yoo xam ne yu xaw a teeng la ci atte nit ñi ak sax àgg ci jàpp ne tuur deret ragat dagan na ci ab jataay dañ koo laaj waaw tuur deret bu dee yow da ngaa jàpp ne dagan na boo ñëwoon ci marché bii tey comme ni ko ñenn ñiy defee taal bomb wala yaasu billah mbooloo ma cay faatu ay jullit lañ wala ay yéefar lañ mu ne ay yéefar lañ ñu ko ah mbooloo moo xam ne yow xamoo leen xamoo seeni tur xamoo fu ñu xëyee amaana ca jàkka ja lañ jóge nga àtte leen ni ñoom ñëpp ay yéefar lañ mu ne li tax ñuy ay yéefar mooy daa am ñu leen di àtte ñoo xam ne àtte woowuñ lislaam ñu nangu ko nekk ci seen biir comme que ñële ay yéefar lañ ñu nangu seen kéefar kon ñoom ñëpp ay yéefar lañ tomb yooyu ca la ñuy jaar ba yéefarloo nit ñi jàpp ne nag kon boo leen rayee itam def nga li nga war a def mu ne ko waaw boo leen rayee fuñ jëm mu ne sawara xam nga xam nga loolu lu doy waar la nit ñoo xam ne xamoo leen àtte nga ne yéefar lañ te bu ma leen rey ñu dem sawara yow mi leen rey da nga ciy am tuyaaba ci lim jàpp mu ne ko waaw léegi ñaara ngi nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo yónni woon am mission bu mu yor di ko dox mooy ndax daa bëggoon nit ñi dem àjjana wala ñu dem sawara mu ne ok daa bëggoon ñu dem àjjana ma ne ko keneen a ngi ñi di ko wax iblis moom it mu yor mission bu muy dox ndax daa bëggoon nit ñi dem sawara wala ñu dem àjjana mu ne daa bëggoon ñu dem sawara ma ne ko waaw yow mi taal fii nag rey ñii ñu dem sawara ci toolub koo xëy ki bëggoon nit ñi dem àjjana wala ki nit ñi bëggoon ñu dem sawara mu ne ah ma ne ko xoolaatal li ngay wax bu la wóoroon ne ñooñu ay yéefar lañ ndax li dox sa diggante ñoom mooy rey leen ñu dem sawara soo ko defee xëy nga ci toolu iblis ndax moom liggéeyam mooy nit ñi nit ñi day dem sawara jàppale nga rey nga mbooloo ñu dem sawara kon léeg-léeg lënt yi nekk ci boppi ndaw ñi waxtaan ak ñoom ci li koy dindi ci la bokk kooku yàlla xam ne la nekkoon ci boppam dafa dañ ba jeex takk amaana lii may wax nii mën naa dem ba àgg ci moom mu dégg ko xam ne wax ji moo ko moom ci lu du ñuy tudd aw turam yàlla delloo si na ko ci siraatul mustaqim alhamdulilah mu jaar ci yoon yu jub yi nga xam ne ñëpp ci lañ jaar kon mbokk jullit yi bëgguma wax ji gën a gudd lool lool ak ubbi rek lañ doon def door a dugg ci li nga xam ne mooy jubluwaayu jataay bi li ñuy dénk suñ bopp daal di ko dénk ndaw ñi ci kàddu yu gàtt mooy nañ dellu ci jàpp ci alxuraan ak sunna bu wér te bañ koo jënde leneen bañ ci caaxaan itam nag nañ góorgóorlu ci sàkku ji xam-xam ñi xamul nañ leen jàngal ñi gëndikoogul jaar ci siraatul mustaqim nañ jëflante ñoom jëflante bi yërmaande te wattandiku nag gépp fiir goo xam ne iblis mi ngi koy fiir nit di ko ko teg teg ci kanamam ngir yàqal ko ab liggéeyam fiir yu bari la nag yoo xam ne dama cee tudd rek li ma junj nii gàllankoor gi muy gàllankoor nit ñi ci xam-xam gàllankoor gi mu lay gàllankoor ci teel a beru nga toog fële defe ne borom xam-xam nga gàllankoor gi mu lay gàllankoor ci nga nekk ci nit ñi di ci wax fàtte sa bopp yooyu yëpp pexe iblis la yoo xam ne jullit bi war na ko wattandiku rawatina ndaw li di ñaan sun borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq di del siwaat di sant sun mbokk yi di ñaan borom bi tabaraka wa taala saxal fi tawfiq te itam teg nañu ñëpp siraatul mustaqim dundal nu ci loolu nu nekk ci di ci kër kër yi ba keroon na koy wujji su boobaa mu wërsëgale ni ci mbaaxam ak yërmandeem tabbal nu àjjana nun ñëpp wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad
jazakumullahu xayran cheikh docteur ci ndénkaane yooyu nga xam ne ëmb na lu bari diine surtout nag ci wàllu ndaw ñi ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fay la te may ñu gën jaa rafetuk dégg ak gën jaa rafetuk jëfe sunu kilifa yegg si na léegi sëriñ Modou Lo fekk fii ay kilifa yu bari ko jiitu ñu ngi koy dalal
دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وألها الآي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس عقل وحكمة مسخر ليها عقل وحكمة مسخر ليها دعوة وربي يبارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها دعوة وربي يبارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وقولها ولا تندم دعوة كبيرة وبها بتقدم سلفي وقولها ولا تندم دعوة كبيرة وبها بتقدم ويكفيني فخر ابن المقدم علم وفضل توجوا بيها ويكفيني فخر ابن المقدم علم وفضل توجوا بيها ابن المقدم علم وفضل توجوا بيها دعوة ربي بارك فيها